jëndee xol moom kon la yàlla mënu bëgg saay. waaw léegi woo leen sax léegi ñu leewantalu rek. waaw waaw kay leewantalu kaay leewantalu yow laay wër. lan la. sama saafaraay ma taw fa yaa xam ne. fan. xaaral maa ngi wax la ñoo nekk ci nekk maa ngi wax ak yàlla. waaw. quoi ci mbokku banu couvert si nekkoon ne presque yàqu bëgg na mën a si loolu moom. xam nga waaw bu fekkee yaa ko dama jëloo ko benn benn xol. soo amoon jël ma sa cent gisuma ko sax xaw ma sax nga wax nii. amay cent franc yabaate wala sax. foofu foo jabal. waaw booy daal di footballal. booy ah. booy waa koñ bi. booy ndaw yow li ma booy tuuti. nga am football. waaw. waaw oh, mënoo baa ñàkk fan. waaw dama doon football dama doon football booy naa ma da ngay génn parce que da ngay gaañe rek ma jël bal bi ne leen kon su ma génnee match bi day tas kenn dootu football. lu tax ñaar ponk gën. Ah? nga gën. parce que dañ na damay gaañe.

waaw kay waaw booy bu talaase be. moom bandi sax. talaase. dañuy bandi bandi rek. saw saw ah xanaa yow xanaa soo génn ñoom dañuy génn. bàyyi leen rek. yow yow waaw. ñu foo génnee ne ñoom dañ fa génn. fu ba ba amati. ñaar ñaar talaase. un deux trois quatre cinq six sept huit. huit huit waaye xaaral xaaral xaaral nga pour nga xam ne pour nga xam dama seen dama dama ci biir. ok si. pour ñu xam ne yow doo sa sa moom. wax woo wóolu ma sama andi foofu. voilà wóolu ma ko foofu. Eh, waaw. léegi ah ni mu nu ma nee naa xam mu nu ma wélul ba soo seetlu mu nu ma fu ma la nga ay gënam gënam ak sa morom mu nu ma sa morom. salaamaaleykum oh, foofu ak salaam. nañ def. waaw ah, na nga ma saa yi. ça va lépp jàmm. naka wàll ah paa bi dama fi de. non seetuma dama gën dafa dama xawma xan xawma xan la wax ne moo gaañu xawma Ismaïla Ismaïla Fall la wax ne xawma xawma wujaam bu mu doon bu bu jugowoon xawma fan la wax moo gaañu mais seetuma paa bi yéen laay set ñu ngay seet waaw waaye yaamu ñun ñun sama doom bi nee na bal bi fii la dugg te yéen ko jël bal bi waaw waaw bal dugg fi de bal bi ñoom dañ na football ak mënu ma waaw loolu la loolu mënu ma ñoom dañoo ful wax mënu ma dama wax nañ lu yox mënu ma hmm. wax nañ daal déedéet waaw loolu la parce que mënu ma mooy fubal ak ñoom booy bi ne da nga kaa mënu ma day gaañ waaw waa kay mënu ma kuy fubal yaa mooy mooy gaañ moom lañ koy gaañ waaw léegi yow xam nga ne kuy fubal dañ lay gaañ da ngay gaañaate booy naka génnal waaw mu mu jël bal bi mu jël bal bi waaw waaw mu jël mu jël bal bi indi ko fi léegi ana bal bi xoolal gisoo bal li mooy bal bi waaw tey nga xotti bal bi ma ne xam nga lii kat gisoo ci el nag ana ma numbe waaye yaa fay war ngaa baax na ngaa alma numbe sa waay te ngaa uf gi jàll nii gën seen seen wool ma numbe mu ñëw nga lijjan ngeen lijjanti bal bi pour la yow da woo ma numbe wala doo woo sama doom la sa doom sama lakk la sa rakk la waaw loolu ngay wax waaw ah, waaw woo ma numbe sa mën eh, ma numbe wala pour la may woo ma numbe ma numbe sama lakk la faal wool ma numbe woo ma ma numbe na fam lal demul ba nga eh, taxol eh, fi man numbe kay fi eh, eh man numbe taxol man numbe bal bi anam bal ba ngi ni mu nga neer li xam nga bal kan mo def ni bal bi ci yeen ya sa way lo bu ko li teunti no tay no tay ba j'en ai mal comme un fils pour mu leer sa neex ka mënu ma ka nga jël bal nga nga gëna xot xot wal bu bu bu gëna bu gëna bu bu ka bu gëna wisalo yeen dañ ma bëgg kan mo xoti bal bi ci yeen ñaar kan kan mo xoti bal bi ci yeen ñaar bunu kaay bunu kaay kaay kan moo xotti bal bi. mënu ma ko xotti. mënu ma ko xotti bal bi. njànku moo moo xo xotti ko. waaw yéen ñaar yéen may fontoo wala. kan moo loolaa yow. ku xotti bal bi. ku ko xotti. ku ko xotti. xotti waaw kii moo xotti. yow yaa ko xotti. moom dama ñëw. mënu ko laaj ko loolu bu tënk ci ma laaj. xam nga la yéen ñaar yéen a ngi may bëgg a sonal kay kay non saa yee. Eh. daf leen da waaw xaar daf leen da xaar xanaa laajoo ko xotti bal bi. man damaa fexe xanaa laajoo waaw kii moo ko xotti. moom moo wax mu xotti ko. saa mënu sama loxo doo sa loxo ci taal bi ngeen daj lu métti yéen ñaar ngeen. lan faaw ngeen daj lu méttee métti métti. bàyyi la nga kër kër chef de quartier bi la da ngeen ni kër lan. boo fi rey ni da ngay dugg de. damaa lijjanti chef de quartier nga am chef de quartier. am ay chef de quartier dama la koy anglais naan ma hi ha ho. ki lijjantul chef de quartier de. Eh, taxawal ngay daw nga chef de ah. quartier. moom mi moo xotti ko yow mi yaa ma xotti ko yow mi yaa ma xotti ko. xam nga la la fii ngay taxaw da ngay bàkku bàkk yu su jaar yoon fii laa lay sifaay ba nga nooy yow fii ngay appuyé avant yow yaay commencé ba pare. waaw mais saa yi man man soo fi deful lu jaar yoon dama lay sifaay. man laaw ma bal xotti ma bal fubalu ma bal moom di di xaw di ci baax. six ay neuf demal. ah saa yi man nag li moom mooy combat boo. est-ce que xam nga ne xeexu bambara du jeex. ii demal. lakkati ma xaw ma la waaye nee nañ ma trop. turam turam turam ndef. lii mooy bàkk bi. waaw xam turam turam kat sam kii. Eh, eh, eh, lii la la daana naan xaw ma ndës xaw ma kii demal fële soor na goo na deuxième round taxawal foofu da wax ak moom rek appui avant da wax ak moom appui avant man asma damaa asma jabetal da ngay appui kii booy fele la mi ay mbalañ yow xaar ma foofu mu ne ma yaa ma fàttali sama kelook rek mais du nii de du nii kenn du appuyé nii appuyé nii ah, la ñuy appuyé lii ngay tëj wax nii mel ni kuy xaar seet ah, ma de baal ma de waay ajal sa taat bi waay oh, yëkkati waaw kay waaw yëkkati sa waaw ah? waaw yi ndeke mooy loolu masallah waatal waaw fii day jóg fii day jóg gis la jóg eh, waaw bàyyi toogal ñaan ko yow nijaay jugal nga naan nijaay nijaay ñëw eh, un eh. nijaay daan. yow su ma lay ngay daan lii lii appuyé la jógal. lañ dañoo dañoo sélectionné. sélectionné yow mii da ngay sélectionné jógal sa bàkk bi dafa fi dara lu baax ñëwal. man pare naa ñëwal. Saaman merci ci sànce laa jóge fan nii maa ngi door a jeexal sama lekkal ay mool demal. sélection laa la problème ci problème laa. sélectionnel. ah, ah ma xool ci mbala xool ci mbala bi nga xam da ngay am looy kaas. waaye eh, fi yow soo fi ci pëli laa xam naa moom sa pax affaire moom nii la man sama weex nu ci ci làkkat noonu may toppalee ci làkkat ci li koy laa mujj xam naa waaw yow laa wax sélectionné laa wax wàcc du ma la ko wan yow nga yàgg ànd ak mbër yi nga àndal la deux nijaay trois xaw ma da ngay naaw xaw ma ndànk laa la wax quatre cinq doy na bal bi nag yéen bal bi ki moo xotti fa kii xotti bal ba bale xanaa ko jéem a bal ci moom nag. soo leen bal bi feneen fu ma leen jàpp mooy loolu noonu. waaw na ngeen di ay paa yi ni yéen ngeen xott balu xale yi. waaw ah. ah, ñu rek. ba yoon lañ ko bokk Ernest. kuy Ernest. Ah? Ernest ab ñaaga lan. kooku ñaaga tamit ah. xaw ma wuñu Ernest mak ko gën a dootoo leen ko defal maa leen xaas mu ko yow lekk nga coono. non may xotti ko. waaw boo xamee da ngay daw loo ma. xaw la wala lekk nga coono. ah. moom day ni réunion xaw ma deux jours laa leen may. waaw ngeen fay bal bi. xasaar pardon zéro. ba day wax bàyyi la ngeen fay day wax nga fay. nga fay ak ngeen fay non xamal tax ngeen fay. booy booy moo lam fubali moo histoire sa booy ñoo indi bal moo ko xotti moom fu ma toog ni di sama daal bougé ma yow da ngay wax yow wax fatal ma foofu loolu sax ma koy fatt waaye ma nga doo yaa xotti li nga la ma nga lijjanti ko yow yaa ne ma xotti ko yow yaa ne ma sama bukki bi màtt na la de mu bari yi si ciixul seerul Seydou <laughs> lijjanti ko yow ah soo jëlee bal maa koy xottiwaat. ndax la wallaay yow pël lu ma daal ci indes dinaa daal ci njaay ci ci xaw ma joolaa la xaw ma bàmba la <laughs> ñun fu ne daaw dañoo jàkkaarloo ko lakkat yi nii benn fois benn. ah waaw ku ñëw sa borom ñëw. wuu lii nag mooy li mooy culture Sénégal dëggantaan daawa génn ci biti génn fa la waaye. man kay baax na nice. ah juu baax na taw waay fa ma dajante ak moom affaire seetaan yi nga doon def. Ah. loo xam sa waay sa waay mënu ma mën a tagga saako yoo xam ne këlëb bu nga demee. naan yow la ngay puub ci ay tabax af yu ñaw lépp laa koy wax sawaay du la gëm xam na yow fenkat nga du la gëm waaw yaa ngi nii sawaay yëkkati la nga def aller retour aller retour naan dal daaj dal daaj dal daaj fii bu yaboo sa tàcc nga def ci guddi yëpp def nga ko ci bëccëg man maa ngi dem kër soo jóob léegi mooy moom jënd bal fay ko waaw baax na moom mënuma ma sama mënuma yàlla moom pay sa dama naan yàlla ku baax la ku mu bëggal waaye moom ku baax la waaye président dama naa bëgg moom moom ndax moom bokk gi nga bokk ak mu ndumba rek moo màcc sama àddina bi moo nga maa mënoo moo nga maa ay binkilin tom moo na maa jul affaire yooyu mais mënuma mi nga ma bokkaleen nii wax dëgg yàlla tamit tamit lool tamit salaay tamit lool tamit ah lépp tam kenn mënu ko wax tamit nag